dëkk ci président de la république chef de l' état ak euh, ci ay directives euh, monsieur Serigne Mbaye Thiam ministre de l'assainissement ñu ñëwoon fii pour nemmeeku li nga xam ni am na fi mooy station de pompage bi nga xam ni moom la ñuy wax station de pompage donc euh, de refoulement de Kër Niang mu am jafe-jafe mu fees ba li nga xam ni mooy ndox mi dugg ci biir kër yi metti na lool donc di wax ne rek. Euh, ñu ngi partagé li nga xam ni mooy métti métti bi ci population bi li ñu jànkoonteel euh, métti na parce que da nga koy wax ni rek su doon yow su doon say mbokk donc ci noonu ngay mun nan la ñuy mesurer li nga xam ni yëg nañ ko par rapport ak li ngeen yëg donc di wax ne rek euh, di remercier vraiment les autorités territoriales le gouverneur les préfets nga xam ne toujours ñoom ñooy njëkk a ñëw donc pour au chevet des populations di remercier service sapeur le service sapeur pompier ñoom aussi di trouver solution par rapport ak situation bi donc euh, remercier au service de l'hygiène donc ñun euh, li ñu fi tax a ñëw mooy sunu devoir et di assumer nag lii fi nekk mooy euh, en fait responsable état parce que station de pompage bi waroon na peut-être xool nag lañ koy étendre mais di wax ne rek yàggul étendre nañ ko en deux mille dix neuf deux mille vingt am dañ koy yokk donc te yokk boobu day day continuer te ñoo ngi ci pour ñu gën ko yokk. nga xam ni li nga xam ni mooy ndoxu ndoxu ndoxu taw war ko drainer mu ñëw fii ñu xool nañ ko ñu koy gérer naam ah loolu jafe na lool mais dañu xool dans un premier temps comme solution ñun ONAS Touba ci kanam mairie ak projet Promoville ñu xool naka la ñuy réfléchir naka la ñuy euh, càmbare li nga xam mooy réseau de drainage des eaux suñ ko xoolee ba pare ñu xool naka la ñuy euh, bloquer Euh, ndoxu taw boo xam ni mën na dem ci ci koñ yi te dugg dugg ci kër yi mu dem ci tali yi te dugg ci kër yi mbedd yi te dugg ci kër yi ñu bàyyi foofu am ndox moo gën ñu bàyyi kër yi kër yi am ndox ci loolu dañ ci liggéey ci ak sunu naataango yi. beneen bi mooy ñu xool naka la ñuy yokkee capacité pompage bi en quoi faisant donc mur bi dañ koy gën a yëkkati mais avec une assurance bu am sécurité ba nga xam ni ndox mi déjà donc su demee ba nga xam ni. Euh, ndox mi mën na yokk en capacité donc ñu def loolu pour que quand même li nga xam ne dafay ñëw mu gën a mu gën a rester sur place donc ci côté boobu je crois que suñu jógee fii dañ ci taxaw nu mu gën a nu gën a gaawee beneen bi mooy ñu mettre en place benn dispositif d' alerte parce que je crois que dispositif alerte boobu su amoon am na bassin fu mu toll niveau bu mu tollu su alerte donc population bi dañu teel a yëg affaire bi pour jéem a faggandiku problème ba am te loolu à partir d'aujourd'hui je crois que système d'alerte bi ordonnance dana ko fi teg nga xam ne ñi fi nekk ñu yombal leen liggéey bi parce que bi ñu demee ba nga xam ne affaire bu débordé na ah il fallait voir li nga xam ni mooy inquiétude ki fi nekkoon jaxle ñëw di fëgg kër yi di wax ne kat lii mënatuma ci dara donc dafa nekk loo xam ni lu xaw doy waar la donc tiré nañ ci leçon ba nga xam ni am na loo xam ni dañ ci jël ay ay décision ay mesures yoo xam ni pour ñu mesurer loolu li ci des mooy je crois que ñu xool naka la ñuy Euh, yokke capacité pompage yi donc pour ndox mi nga xam ni moo nekk fii ñu gën ko gaawal yóbbu au niveau du bassin de stockage ci loolu dana tax aussi ñu yokk aussi capacité donc de refoulement mooy tuyaux yu jëm directement ci bassin wax maan stockage boobu te suñu demee bassin bi aussi il faut foofu aussi ñu yokk ko ba nga xam ni ndox bii ñëw foofu ñu gën ko stocké foofu foofu foofu ci Darou Rahmane donc système boobu foog ñu sëkkandi ko pour trouver une solution par rapport à, à cette gestion donc provisoire li ci des mooy euh, de façon matériel bi ñu àndal donc ñëw nañu andi nañu aussi trois pompes parce que bi ñuy ñëw dañuy wax ni kat li ñu xalaat naam station bi la mais sinistré ci la bokk moo tax ñu ñëw ak deux pompes motopompes ak benn électropompe boo xam ni donc 400 mètres cubes par heure pour au moins ñu jox ko à la disposition du préfet donc à la disposition donc des brigades sapeurs pompiers pour ñoom ñu mën a accélérer ndox mi donc mu mën a ñëw fii ci ci bassin bi nu mu gën a gaawee nu mu gën a gaawee kooku mooy priorité numéro un donc pour nit ñi gën a vraiment ñu ndox mi génn seen seen kër yi maintenant li ci des nag mooy à à long terme parce que mën nañu xool Touba étant la deuxième ville du Sénégal donc mu am benn bassin principal mu am benn bassin stockage donc war nañ xalaat ni kat am lu des moo tax bi ñu ñëwee fii euh, yàggul lool defoon nañu benn atelier partagé li nga xam mooy plan directeur d' assainissement mu xayma lépp loo xam ni mooy assainissement bi war ci Touba muy ci ndoxu ndoxu taw yi muy ci ndoxu gànnawaay yi plan boobu ñu partagé ak acteurs yëpp ak waa mairie ak ñëpp ak euh, les autorités ba ñëpp xam ko mais li mu wane mooy il faut à Touba ñu am ay bassin de rétention au moins quatre yoo xam ne de part et d' ñu def ko fa ndox yi mën a répartir carrément dispositif yi muy àndal mooy station bu mel ni yeneen station yu ndaw yi yeneen ak vraiment de drainage yoo xam ni réseau yu yu kooku kooku nag c'est à moyen long terme ñu ngi ci am ay requêtes yoo xam ne togg nañu ko pare li ci des mooy autorité ak partenaires financiers yi ñu accompagner ñu pour li nga xam ni mooy projet boobu mu ñu mën ko ñu mën ko teg sur place donc di wax ne rek ah autorité yi ah plus euh, ci ci ci nga xam mooy autorité principale mooy chef de l'État donc mu ngi en quelque sorte wax leen ni préoccupation Touba comprise waa de toutes les villes donc moo moo nekk ci boppam donc et ci la ñu nekk ñu ñuy jox li nga xam ne mooy assainissement ci la ñu nekk nekkuñ ci leneen te surtout loo xam ne aussi dañuy war a am obligation waxtaan ak askan bi ñi nga xam ni ñoom moom li nga xam ni ouvrage yi lañ leen defal muy mbirum eaux comme mbirum eaux usées yi donc moo tax lii ñu ñu fekk fii ñu ngi koy rafetlu bu baax ñu déglu leen wax seen njàqare te ñun aussi ñu ko parce que ku ci nekk da ngay yàq da ngay mën na li mën na la dal mën na dal sa mbokk donc di wax ne rek partager kon ak yéen donc moo ñu war doo leen aussi euh, di leen ñaan ngeen accompagner équipe bi fi nekk équipe bi fi nekk dañ leen dënk pour ñu sécuriser li nga xam ne station de pompage mooy li nga xam ne mooy dispositif pompage bi mu fonctionner 24 heures sur 24 euh, relais yi nga xam ne ñoo fi nekk nekkuñu rek ci station pompage ci différentes stations de pompage yi nekk xam moo nekk ci tuba ñoom aussi ngeen jàppale leen ci fi ñu nekk ci fi ñu liggéey donc euh, les comités peut-être wax Touba ci kanam ak euh, la mairie accompagner dispositif donc de gestion ouvrage yi euh, vraiment ñoo ñu ñu jàppale ñu ci li nga xam mooy gestion ouvrage yi donc dañu waxtaan aussi ak Touba ci kanam commencé nañ waxtaan donc vraiment avec un engagement fort de Touba ci kanam Promoville toujours ñun état la dañu waxtaan par rapport ak li ñuy wax cartographie li nga xam ne mooy réseau bi ñu xool naka lañ koy gën a exploité pour li nga xam ni mooy gestion eaux pluviales lii bañ fa amati en tout cas loolu mooy suñu mbébét